salaamaaleykum mbokk téléspectateur yu ñu seetaan fii si Dakar Live TV mbokk yi ñëw ci seen euh, enjeu politique bi nga xam ne am na ci réewu euh, Sénégal élection yi ñu jublu muy euh, élection législative yi nga xam ne jublu nañ ko tey jii dalal nañu benn kàngam ci politique ñu bàyyi ko mu présenté wu. donc maa ngi nuyu Dakar Live ak équipe bi nga àndal yëpp. donc euh, di leen remercier ci interview bi ngeen ñuy defal man nag euh, maa ngi tudd du Faye nekk mooy maire sortant commune Touré Mbonde euh, nekk ci département Diourbel arrondissement bu Ndoulo donc maa fa nekkoon de maire de 2014 à deux donc à l'issue des élections locales yi nga xam ne moo mujj am donc ci la ma remplacer donc euh, depuis lors euh, ma nekk maire sortant nekk fa nag responsable euh, bu APR au niveau de la commune mais nekk responsable benn Bokk Yaakaar ci commune ba mais daal le département aussi ma nekk fa responsable foofu ci commune bi ci sama liggéeyukaay aussi maa nekk le coordonnateur de la cellule de passation des marchés du ministère de l'environnement et du développement durable donc mën naa ne daal brièvement Euh, loolu mooy sama kii mais ci politique également ma bokk ci kàngam yi nga xam ne ci cadre APR lañ bokk ci benn kuréel bu ñuy wax la convergence des cadres républicains donc euh, mooy cadre yi nga xam ne euh, ñooy ànd ak président Macky ci APR di ko gunge ci politique kon mën naa ne de manière très succincte loolu mooy sama présentation bi nga xam ne mën naa ko def ah merci beaucoup monsieur le maire de la commune de Tourémonde ah euh, monsieur le maire ju jublu ci élection yi nga xam ne passé nañ ko muy élection législative yi nga xam ne jublu nañ ko woon mu jaar yoon ci yenn communes yi jaarul yoon ci yenn communes yi yan euh, problème ngeen jànkonteel seen biir commune. waaw comme euh, yëpp ah élection yi nga xam ne moom la ñu passé muy législative yi dafa nekkoon ci contexte bu jafe. ndax wax dëgg yàlla ci moment yi ñu koy organiser donc euh, dafa nekk ci contexte boo xam ne contexte crise mondiale la donc avec flambée des prix pétrole hydrocarbures bi mais denrées alimentaire yi ak tout ça mais nekk ci contexte boo xam ne aussi champ politique bi xaw na jaxasoo mm-hmm. donc euh, ci noonu lañu ñu organiser élection yi mm-hmm. mais mu nekk ci contexte boo xam ne aussi état major parti yëpp aussi dafa compliqué woon parce que bataille de positionnement yi nga xam ne moo nekkoon ci instance yi parti taxoon na mu nekkoon lu compliqué mu nekkoon lu complexe mais nag alhamdulilah boo ñu passé ko véritablement ci niñ ko war a doxale euh, en tout cas au niveau de département de Diourbel euh, tout au début metti woon na foofu ndax euh, comme partout au Sénégal Euh, élection moom saa yu amee rek am na ay bataille de positionnement. tension am na ay tension mais quand même on es arrivé à gérer ces tensions euh, pour vraiment euh, parvenir à avoir benn équipe boo xam ne dafa travailler dans la cohésion. Mm -hmm. dans l'unité euh, loolu sax moo ñu mën a permettre ñu am victoire bii nga xam ne am nañ ko au niveau du département. ah vous avez eu une victoire au niveau de votre commune. Mhm. Mhm. Tourémonde. Mhm. c'est comme ça. commune de Tourémonde. commune commune de Tourémonde. léegi ci ci coow li nga xam ne amoon na euh, yenn euh, camp opposition bi ne Yewwi Askan Wi am na raw gàdd ci yenn communes yi wala ci yenn département yi. xëccoo voix yi ndax jànkontele woo leen ko ci seen biir commune. effectivement bon xam nga def bu ñu wax élection législative. élection yoo xam ne dafa am liste bu ñuy wax majoritaire ak liste bu ñuy wax euh, proportionnelle euh, mm, donc c'est vrai que ci Sénégal euh, à l'issue des élections coow li bari woon nañu yëpp kenn ñi naan ñoo jël raw gàddu gi ñu naan ñoo jël raw gàddu gi opposition bi mais ñun au niveau de Benno Bokk Yaakaar in fine bi ñu xoolee ñun ñoo jiitu ah, c'est vrai que amuñu majorité absolue mais quand même ñoo jiitu avec 82 députés donc ah. au niveau de chaque département aussi ci majoritaire bi dañ fa investir on ay candidats hmm. eh, yàlla def nag ñu bokk ci ñun ñi nga xam ne département yi nga xam ne dañoo gañe te boo ko dee xool ci 46 départements yi euh, am na une trentaine de départements voire 31 départements yoo xam ne bennoo suñu coalition bennoo bokk yaakaar bi nga xam ne président Macky Sall moo ko jiite gañe na ko seen commune seen commune Touré Monde ñaata voix la am de d'écart de différence avec euh, les les oppos les opposants waaw suñu commune nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo inscriroon total inscrit mu ngi nekkoon quatre mille six cent mhm. électeurs mhm. mais nombre de suffrages valablement exprimés mu ngi nekkoon deux mille cinq cent quarante et un euh, mhm. bi ñu xoolee ñun Benno Bokk Yaakaar ñu ngi ci am mille cinq cent quarante contre euh, 800 pour euh, wàllu bi nga xam ne moom moom lañ euh, jàllale woon ay listam moom lañ investir investiroon foofu wàllu Sénégal foofu ci département bi wàllu moom parce que intercoalition la wàllu ak Yewwi demee waaw dëgg au niveau département de jurbel mm-hmm. seen candidat wàllu la woon ñun ñu ngi Benno Bokk Yaakaar au niveau de la commune totalisé na 1541 voix contre 800 voix pour la coalition wallu Yewwi Mm. kon def na war naa def une différence de voix de presque 800 voix 541 voix de différence mm. donc euh, avec 61 euh, pour cent une victoire de soixante qui qui engrâce plus de 61 pour cent de des suffrages ma exprimés mm. kon nga xam ne c'est une victoire boo xam ne bu ama am am solo la boo ko comparé ak euh, yeneen localités yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal. à Touré Monde ok waaw à Touré Monde. ah c'est important à ban apport euh, ngeen euh, def ci résultat élection yi nii. en tout cas apport bu am solo. Mm-hmm. ndax tout au début c'était pas évident. ndax xañ na dañoo jóge ci ay élections yoo xam ne ñun dañ ko per en tant que ancien maire. Mm-hmm. ñu waroon a dëgmal ay élections législatives waroon ko gagner. bi loolu amee président de la république defal nañu honneur ñun maire sortant yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi mu recevoir nu ah waxtaan ak ñun jox ñu ay orientation ay ay directives nañu kat li mu bëgg ñu travailler dans un cadre unitaire avec responsable ak maire yi mhm. ah ñu nit ñu promettoon ko ne dinañ ci investir bi ñu demee lam ñu waxoon loolu la ñu def dañoo dem ànd ak le coordonnateur départemental le ministre Dame Diop que je salue de passage ak responsable yi nga xam ne ñoo fa nekk yépp ak euh, voilà au niveau de la commune ci la ñu ànd ñu battre campagne. Mm-hmm. c'est vrai que au niveau de ma commune wax dëgg yàlla man àndumaan ak maire équipe maire bi nga xam ne moo fa nekk man ak sama équipe dañoo beroon suñu campagne mais li ci amoon solo rek in mooy ñaar ñun ñun ñaar ñi nga xam ne ñoo fa nekk muy maire ak équipe ak man mi nga xam ne maay la coordonnateur Benno Bokk Yaakaar di le responsable de l'APR au niveau communal li ci amoon solo te muy pacte bi nga xam ne signé woon naa ko ak président te waroon ko respecté mooy dem wax ak samay militant mhm. parce que ni ma mënoon a wax samay militant parce que bilan président tey Macky Sall ki ko fa porté mhm. ki ko fa porté mooy le maire man mi nga xam ne maay le maire sortant donc ki nga xam ne nag dafa nekkoon ci man te créé woon liste parallèle xëy na nekku doon à l'aise pour mën a défendre le bilan du président Macky looloo taxoon ma opté pour que man ma ànd ak samay nit dem défendre le bilan sama bilan en tant que maire sortant mais bilan wu président Macky moo tax véritablement ñu am résultat yi ñu am vraiment ça apporte parce que ñun ñëpp dañoo root sotti ci euh, ndaal président de la république. mais lan moo lan moo waral loolu noonu yow nga opté dem ubbi sa beneen camp. jéem a défendre bilan président Macky alors que vous avez un dirigeant boo xam ne moom waroon ngeen mun a nekk ci wetam pour mun a défendre cause Macky Sall. parce que dama d'accord doon ci choix yi ñu defoon pour conduire ko def ko. Euh, hmm. euh, coordonnateur Benno Bokk Yaakaar. ah ci ay principe ngeen d'accord ci principe laa d'accord par principe. Uh-huh. man dama d'accord doon ci moom mu jiite ma. parce que nag gan du jiite. dëgg la gan dafay ñëw ranger wu ah suñ jëlee jiital ko man euh, par principe. moo taxoon samay nit ñu ne ma hmm. yow su fekkente ne da nga nangoo dem bootu ci la maire bi nga xam ne moom moo ñëw fii barku Dembo Ndiaye am leneen lu mu doon wax ñun duñ la suivre. ah, ah. parce que si say militant yi ah. nga xam ne yow yaa leen uuf. ñoom d'accord ñu euh, seen maire bi jiite. comité euh, électoral comité bi nga xam ne mooy Touré bi ma consulter sama base ñoom dañ ne d'accorduñu maire bi nga xam ne moo fa nekk mu jiito le euh, comité électoral bi jaraloon na leen sax ñu dem ba def vote sanction. est-ce que demoon nga waxtaan ak euh, monsieur le ministre pour en fait mu jéem a xool nan ngeen ni booloo doon benn ngeen xool benn benn benn benn benn kii boo leen mën a teg boo xam ne en fait vous serez unifié. waaw vraiment loolu damay saluer aussi le ministre hein, le mm. coordonnateur le ministre daam ah. jéem ñetee dox mais dafa antuwut. ah parce que ñun bi ñu président waxee bi bi ñu recevoir liñ ko wax liñ ñu wax dinañ ko def. dèjà dinañ baat campagne. Mhm. mais à notre manière. Mhm. parce que nag par principe dañoo d'accord ci coordination bi nga xam ne le maire entrant moom moom moo ko war a coordonner. Mhm. parce que n'oubliez pas bi ma président investir en tant que candidat Benno Bokk Yaakaar moom dafa créer liste parallèle. ah. noonu la demee. ok kon. tey suñ ñëwee mu gañe ñëw ñu jiital ko ñu ne ñun nañu topp ci moom moo tax samay nit ne comme yow la présoir bi président defoon moom d'accordu ci ñun d'accordu ñu ci li nga xam ne moom lañ ko conduire def euh, comme tête de liste comité électoral bi ah. ci noonu lañ demee man leen nag comme yéen wax dëgg yàlla man ak yéen mënumaa dem bàyyi leen yéen aussi mënu leen a dem bàyyi ma ni ñuy def nañu waxtaan seet ñu def ñu ne daal maire li ñu bëgg mooy nañu dëggal suñu bopp nga jiite défendre le bilan du président Macky Sall parce que bu ñuy wax bilan président Macky Sall au niveau de la commune de Touré Mbonde yow la. monsieur le maire boo doon estimer en pourcentage ci enjeu élection yi nga xam ne jublu nañ ko ban pourcentage nga mun a jox ci sa liggéey ba Touré Mbonde remporter élection législative yi ñu jublu woon. apport bi ma indi. waaw mooy bilan. man à combien de pour cent. waaw pourcentage bi tey parce que on est à 61 pour cent. waaw tey su ma bàyyi woon maire le maire bi nga xam ne moo fa nekk. waaw il serait mal à l'aise nit ña nga xam ne barki de moo njaay mu ngi leen doon wax naan vote leen beneen bulletin bi ñëw retourné waat. kon je pense que kon kon du duñu am victoire bi. dañ leen gagné parce que leen di gagné. c'est une région aussi compliquée à gagner. Voilà. surtout ci camp présidentiel muy camp benn Bokk Yaakaar. effectivement opposition bi a eu la large majorité. Mhm. ci biir euh, Touba. Mhm. Mbacké ak li ko wër. Mhm. kon nag bu ñu demee ba Touré Monde vous avez remporté les élections législatives donc euh, on pourrait dire chapeau à vous. effectivement mbon et fait exception. ah donc est une exception dans la région. parce que boo dee xool ci région Diourbel. Mhm. trois départements yi dañoo perte. Euh, le département de Mbacké. waaw. perte Touba bi nga xam ne moo yor. le gros de l' électorat. bien sûr mais perte Bambey également. Bambey c'est vrai Mm-hmm. Euh, département bi nga xam ne moom moo moo moo moo moo ci mucc mooy le département de Diourbel et que loolu aussi su amee mm-hmm. dama koy préciser c'est grace à l'apport de la zone rurale ah. ñun les onze communes rural mm-hmm. qui ñun ñoo tiré euh, la le département ok tey bu ñu gañee tey au niveau du département de Diourbel kon ñun onze communes yi nga xam ne ñoo nekk dans le monde rural te Birame Wàdd bokk ci am ci apport bu am solo. Mm. ñun ñoo tax ñu gagné élection yi. kon loolu aussi dafa doon loo xam ne day baax ñu xam ko bu président aussi war ñettee def ay jàngat. parce que mm. nag ñun aussi dafa am lu ñu metti mm. te dañ koy wax. Ah. s'il s'agit d'élection ñun ñooy réservoir bi nga xam ne ñun ñooy ñun ñooy engagé euh, ñu ñun ñooy contribuer à la à cette victoire. mais ñu demee boo war a joxe ay postes de responsabilité malheureusement c'est la commune de Diourbel. moom moom moo ci bénéficier la zone rurale est laissée en rade kon en perspective damay dugg ci perspective yi. waaw en perspective perspective yi nga baal ma dinañ ci ñëw. mais dama buggoon ñu gën a accentuer ci débat boobu noonu dafa am solo nit ñi xam yow mi en tant que euh, maire sortant de la commune de les Monde dama buggoon xam exactement yow sa politique kañ nga ko door biir Touré Monde ak jéem a xool aussi tamit nan nga créer sa champ politique ba nga am ay militants ak nan la mun a demee ba nga xam ne vous avez remporté les élections législatives yi bëggoon naa nga ñëw ci juste. voilà euh, brièvement. xam naa dina jafe. waaw wax sama cursus. ni mu demee non pas cursus mais non non dinaa ci wax tuuti rek. waa parce que dafa am solo ñu mun a xam exactement ndax c'est c'est grâce à vous. Mhm. commune Touré Monde remporté élection législative yi nga xam ne jublu nañ ko woon. Euh, te nekk en faveur waaw sama sama euh, ni ma wàcc ci langue euh, politique bu commune Trombone nii la c'est simple man fii dakaar mhm. mën naa ne bi may dugg ci APR fii ci dakaar laa duggee APR ci structure de cadres ah républicain ci laa jëkk a intégré en 2011 déjà en 2011 booba fekk gu doon président ñu falu. ñu falu waaw. waaw man ba may topp ba may ànd ak président on était benn poignée cinquante cinquantaine de cadres. ñu koy wax convergence des cadres républicains. foofu laa kii bi ma ñëwee nag 2011 ba ba ñu gagné. 2012 mhm. 2013. waaw ci laa retourné nag. Touré Mbon dem Touré Mbon. parce que président daf ñoo instruire ne. cadres yi damaa bëgg ngeen wàcc ci seen i base ci seen i localité uh-huh. pour ngeen dem foofa mën appuyer les responsables à la base. ok loolu moom ma indi woon Touré ok waaw bi ma demee foofa aussi dama ànd ak ña nga xam ne ñoom laa fa fekk les mm-hmm. responsable à la base. Mm-hmm. ñu liggéey. Mm-hmm. ba yàlla def ñu ñu. gagné jiital la waaw en 2014. en 2014 kon euh, sama wàcc euh, ci commune Touré Mbone ci langu euh, Diourbel maanaam commune département de Diourbel. notamment la commune de Touré Mbone noonu la demee. maire entrant bi. waaw maire entrant bi. moom allié la woon. donc euh, ci ni ñu ànde woon en 2014. on était ah. parti euh, on était trois listes moom dafa nekkoon benn liste boo xam ne ñu koy wax euh, gëm sa gox te ànd ak le maire sortant maire bi nga xam ne mooy maireu commune Diourbel Malick Fall. waaw man maa demoon ci bañeeru Bennoo Bokk Yaakaar président tànn ma am parti socialiste aussi nekk un allié ñoom it amoon nañ seen liste. bi ñu demee ma gagné leen. Ah. bi ñu leen gagné hmm. après. ñu ñëw ànd ak man nangoo ànd ak man kenn ku nekk ma cër la. Mm-hmm. poste adjoint au maire. moom mii ma gagné moo nekkoon sama premier adjoint au maire. ok nekkoon ci liste euh, euh, gëm sa gox. Mm-hmm. kon on peut dire que yow yow bokk nga ci lu tax moom mu forgé wu ba doon maire. Euh, en ce moment bien sûr bien sûr. parce que man bi ma gañee mhm. damaa yaatal woo leen ñoom ñëpp kenn ku nekk ma cër leen ndeysaan noonu la demee mhm. ah moom moo fa nekkoon sama premier adjoint mhm. man j'étais un maire boo xam ne toogu man pratiquement lu ci bari ah, bu ma ko daan kii dama ko daan dama ko daan bàyyee loolu kon mën naa ne euh, tey bu foloo xëy na c'est grâce ak euh, confiance boo xam ne joxoon naa ko ko waaw euh, moo tax tey mu mu nekk foofu ne nii ah am na solo euh, on revient sur les perspectives quelles sont les perspectives de la commune waaw les perspectives de la commune waaw c'est simple ah, ah. doon naa ko wax mhm. ñun perspective bokk na ci que zone rurale bi mhm. vraiment bëgg nañ président xoolaat bu baax la zone rurale xam ne mhm. bu ñu gañee tey Diourbel ah. ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ay responsable nekk ci dans la zone rurale du département moo tax mu gañe ah. ndax rien que booy def écart de voix la zone rurale andi plus de six mille voix ah six mille voix c'est la indi comme apport moom lañ gagné opposition moom lañ ëpple opposition bi ah. comme pendant ce temps ñun dañoo perte la commune de Diourbel dëgg la kon tey mën naa ne c'est la commune la zone rurale qui a tiré le département pour ñu gañ kon nag li ñuy xaar rek mooy que cette zone rurale ñu jox ko plus de considération ah c'est parce que on a constaté que ñun ñooy la machine électorale mhm. suñu waree dem élection ñun ñooy gagné élection présidentielle yi noonu la demee woon mhm. élection législative yi nii la deme mais le constat mooy bu ñu gañee ba pare bu ñuy dem booy war a joxe poste de responsabilité cette zone rurale est laissée en rade. Hmm. te pourtant cette zone rurale là regorge de cadres am na ay cadres ay intellectuels yoo xam ne véritablement war nañ leen a mën a promouvoir am na ay cadres politiques ay nit ñoo xam ne ay kàngam yoo xam ne politique lañ war nañ leen a mettre ay postes de responsabilité doole leen. pour ñu war a maintenir seen base. mais daal en perspective ñun li ñuy laaj mooy nañ ñu gën a renforcer. nañ ñu gën a dooleel pour ñu mën a entretenir suñu base parce que nag daa am ñu bari ñoo xam ne. ñu ngi ci suñu gannaaw te yaakaar ci ñun te ñun aussi ñu war leen a jàppale jàppale suñu gox yooyu. Hmm. loolu daal leneen li ci des mooy euh, véritablement may lancer un appel aussi. Hmm. à la classe politique que ñu xam ne Sénégal ñoo ko bokk mënuñ koo xar ñaar président tàll bu leen tàllalee loxo nañu war a ñëw ànd ak président ñu liggéey Sénégal dans la paix. dans la sérénité dans la tranquillité parce que loolu foofu la jàmm Sénégal nekk man du bokk ci ñi nga xam ne dañ naan nañu toog fële di mm. opposé di taal naan nañuy jéem a xool nañuy taale Sénégal mm. Sénégal ñoo ko bokk kon président du noppee jóge di tàllal loxoom kon opposition bi aussi maa ngi leen di lancer un appel nañu ñëw ñu ànd liggéey Sénégal bu ñu demee ba yegg ci fu ñu war a def euh, euh, présenter élection président ci cappaambaay mais bu boobaa mhm. ñu xool mais vraiment c'est très prématuré ñuy wax fi ay troisième mandat deux te président waxu ci lenn. te loolu c'est important monsieur monsieur le maire parce que tamit euh, président de la république suñu fàttaliku wee ci discours bu nga xam ne defoon na ko dafa ne woon nul ne peut faire trois mandats consécutifs. Ah. donc leer na mu toogaat moom nee na ñaari mandat rek lay def. Ah. léegi nag bu ñu toggaatee c'est important tamit. opposition bi camp adverse bi soulever débat boobu noonu jéem a fàttali président kàddoom yi nga xam ne yëkkati woon na ko baaxee na ko woon askan wi loolu pour man euh, c'est bien boo de débattre sur ça ak tamit président jéem a jéem a gindi askan wi ci li nga xam ne tamit opposition bi ñoo ngi koy mbuboowoo di ko campagne waaw man loolu li ma ci doontu lu leer la mhm. xam nga président ba léegi mhm. lam ci waxoon je crois que deltuwu ci gannaaw dëgg la am na lu mu waxoon mais na na ni bu neexee bu bu bu am am na ñoo xam ne nañ jàpp la mu la mu njëkkoon a wax. njëkkoon wax waaw. nañ jàpp loola. mais moom dafa dem ba jikki mu ne leen léegi comme mbir mi day andi coow. Uh-huh. su ma nee waaw mu indi coow su ma nee déet kenn dootul liggéey. man du ma ne waaw du ma ne déet. ndax wax dafa jooy ñu ne ah, lu tax wax jooy mu ne hmm. dama ko wax te jotagul mais bu jotee président na ko wax dese nañu un mois et un an et demi dix huit uh-huh. mois uh-huh. mais mën naa xaar ba dese un na mu prononcé wu ci. ah incha bu ñu bu ñu luqati bu ñu jéem a luqati lancub jàmbur. président nee dina ci prononcé wu. te yaakaar naa ne le moment venu dinañ ci prononcé wu. Ah. gis nga Sénégal fii. Hmm. dañoo yegg ci benn maturité démocratique boo xam ne. Hmm. sénégalais yi rek électeurs yi. ñoom ñoo souverain. mais monsieur le maire est-ce que yaakaaroo ne kan opposition bi ci yenn yii nii la ñuy sukkandiku pour jéem a euh, réeral askan wi mooy li ci mel nii Euh, mandat président de la république wala sax li ci beneen beneen beneen bi mooy gën am solo mooy wàllum ñaari tur yi wàllum ñaari tur yi moom président de la république euh, ci benn interview euh, jotoon na ko leeral wax na ne que man mi d'accorduma ak kuy def ak kuy voter loolu noonu kon loolu débat boobu yaakaar naa ne léegi c'est classé mais beneen débat bi bi nga xam ne opposition bi tout le temps moom la ñuy campagner moom la ñuy jéem a réeral askan wi ci sama xalaat bu gàtt est-ce que ndax loolu noonu tamit baaxul woon bu fekkoon ne élection législative yi président de la république moom ni mu génnee ci wàllum ñaari tur yi leeral na ko bu ko leeroon noonu loolu est-ce que yaakaaroon ne président de la république gagné élection yi nga xam ne mooy législative yi. waaw xam naa ne bokk na ci contribuer na ci li nga xam ne moo tax opposition bi tey def percée man moom jàngat yooyu moom def naa ko. voilà man gëm naa ne. Hmm. le fait que président. Hmm. clarifie position. position opposition bi def percée loolu nag. voilà c' est pas peut-être le mili le le le kii mais c' est l' observateur. politique ah, man sama jàngat. c' est ça ndax tey bu opposition bi amee lii mu am percée bii mu am. Ah. parce que dañoo manipuler. manipulation de manipulation la ñu def. Ah. pour xamal leen ne président dafa bëgg a defaat troisième mandat. et ba léegi. Mhm. président waxu na day def troisième mandat waxu na du def troisième nag su ko neexee mu ne. tey mhm. bu ma ko waxee mhm. te constitution bi waxu ko du am benn valeur parce que ci référendum bi mais président waxoon na fi ne man sama sama deuxième mandat sama kii sept ans la euh, la mais moom interprétation dafay juumoon mais bi ñu demee constitution mhm. bi mu kiyee dafa ne kat bi mu defee interprétation jox sens loi bi li mu wax mooy sa première mandat dañ laa élire pour sept ans te pourtant moom li mu bëggoon mooy mu def deux mandats de cinq ans mais mën naa demaat ba foofu même mën naa wax ne man damay yem ci deux ci ci deux mandats mais ñu dem soumettre euh, candidature au niveau du conseil constitutionnel mu wax leneen kon li am solo nañu wóolu suñuy institution pour revenir ci sa question effectivement damay confirmer ne troisième mandat boobu ak affaire yu ngóor jigéen ñi ak manipulation yi nga xam ne def nañ ko auprès des population bokk na ci li nga xam ne moo tax tey opposition bi def percée mhm. loolu moom c'est clair léegi nag je pense que euh, le président euh, a les coups de france pour mu prononcer wu. Hmm. et je pense que c'est le moment idéal fi mu nekk nii. Hmm. pour mu war cee prononcer wu. prononcer c'est important sinon vraiment dañuy continuer di di di di di di agiter cette question la uh-huh. et que ça ne va pas bon pour l'intérêt euh, de la population sénégalaise. Uh-huh. ci góor jigéen moom wax na ci lu leer. dëgg la lam ci wax nee na tant que je serai là. Uh-huh. kenn du fi doxal doxal njëg ngóor jigéen. leer na loolu moom lu leer la ci. lu leer la waaw mais xam nga nit ñi aussi dañoo nekk ci ak réseaux sociaux yi ni mu demee. dëgg la ak pluralité médiatique bi. dëgg la ak démocratie bi. atteindre mm-hmm. na à certain niveau boo nga xam ne kenn mm-hmm. ku nekk lu mu neex mu wax. te nit ñi aussi euh, souvent lu ñu déggee ci lu ñu gisee ci réseaux sociaux yi wala ñu dégg ko ci média média yi. Mm-hmm. ñoom dañ koy gëm. dañ koy gëm c'est vous avez parfaitement raison euh, le maire euh, mon avant-dernière question damay laaj exactement ci élection législative yi nga xam ne gis nañ ne Benno Bokk Yaakaar a eu 82 députés quand opposition bi bu ñu globaliser seen députés yi ils ont eu Wallu a eu 80 euh, les trois autres le maire Pape Diop euh, Pape Djibril Fall ak euh, Thierno Alassane Sall léegi ci loolu noonu vous n'avez pas eu de majorité absolue majorité absolue amu ko gars yi ñoo ngi doon wax exactement cohabitation loolu nangay ngay jàngatee mbir moomu ak tamit bu fekkee ne élection yi nga xam ne législative yi jublu nañ ko à l'assemblée yaakaar nga ne benn Bokk Yaakaar euh, siégé biir assemblée comme président de l'assemblée nationale normalement parce que Euh, ni ma gisee mooy fi mu nekk nii avec euh, la reconfiguration euh, de cette législature mhm. quoi qu'on puisse dire ñun ñoo ñun ñoo jiitu ñun ñoo am majorité mhm. bien vrai que nous n'avons pas la majorité absolue mhm. les 83 mais ñoo jiitu dañuy wax opposition amuñu une opposition nous avons des oppositions parce que tey boo dee jàngat résultat yi da nga naan Yewwi 56 députés la am Mm-hmm. wallu 24. Mm-hmm. Euh, ñeneen ñi kenn ku nekk am un député noonu la demee. Mm-hmm. léegi nag te reconfiguration ba na ñuy demee foofu ah, jeu d'alliance yi au niveau de l'Assemblée nationale mais on peut avoir la majorité. on peut se retrouver avec euh, yeneen ñi nga xam ne dañoo gis ne kat seen njëriñ ci majorité présidentielle la ngeen nar a def da ngeen nar a jënd ëpp député yi pour mun a parce que yeewi askan wi dégg naa sax am na ñoo xam ne commencé nañ rocceeku dem Benno Bokk Yaakaar pas mais c'est des informations yoo xam ne qu'on a donné c'est pas avéré dégg nañ Pape Djibril Fall le président de la République l'a reçu yooyu noonu yëpp débat yooyu noonu yëpp ñu koy soulever mais c'est possible ah. c'est possible parce que jeu d'alliance lañ nekk ah. mais benn Yewwi cette coalition intercoalition Yewwi Yewwi Yewwi Wallu mm-hmm. mais c'est à la dernière minute lañu la ñu waxtaan pour d'accord ci ah. mais comme ñoom ñoo ñoom mën a waxtaan d'accord à porte euh, yori Euh, ñun aussi ñu war a mën a waxtaan avec une France de l'opposition pour mën a def suñu coalition au niveau de l'Assemblée nationale. mais pour que éviter la cohabitation parce que cohabitation amul sens te du demal réew mi fen blocage institutionnel la ñuy observer et que je crois que ñii nga xam ne gis naa leen. ñu nekk de véritables patriotes amuñu intérêt blocage di am foofu. moo tax ma am yaakaar ci sama rafet njort ne président bu ubbee waxtaan. dinañ mën a waxtaan ba une partie de l'opposition ñu mën a accepter ñëw rejoindre mm-hmm. le camp de la mouvance présidentielle pour l'intérêt supérieur de la nation mu ñu mën a doxal Sénégal mais yaakaaroon ne benn camp opposant bu ñëwoon rejoindre le président de la république lu nga xam ne ma ngi rot ci nopp sénégalais yi nga xam ne nee nañu opposant bu ko def war na Sénégal war na vote bu ñu leen sànnil est-ce que loolu xawul handicapé yenn opposant yi nga xam ne ku ci mel ni Pape Diop Pape Djibril faa wala Thierno Alassane loolu c'est une analyse de l'opinion voilà de l'opinion publique waaw waaw opinion la ah mais beneen opinion bi hmm. tey bu bu amoon koo xam ne dafa jóg ci ci camp hmm. dem ci opposition bi ah. lan lan lay kon nuñ koy jàngate mais il faut que ñu accepter ne hmm. liberté nit ñi dañoo am liberté d'appartenance à un camp jóge ci camp boobu dem fee comme nit mën naa jóge ci camp présidentiel bi dem ci opposition de la même façon nit war naa mën a jóge ci camp opposition bi dem ci mouvance présidentielle bi s'il y a pas de problème parce que politique moo demee noonu parce que ay programme la ñu teg ay principe la ñuy teg boo xoolee ba gis ni kii sama programme ak programme am euh, am na ay ay convergence de ah, vie ah. mais pourquoi pas nga dem jàppale ko ah. parce que yow la nga doon défendre mais gis nga ko ci camp présidentiel bu fekkee ne intérêt Sénégal moo la tax a jóg war ngaa mën a dem nga ànd moo fi nekkoon le principal opposition mais su demee ba intérêt supérieur de la nation posé wu uh-huh. dafay dem ci mouvance bi bu demee ba war a génnaat mu génn uh-huh. ça ne veut pas dire que yow soo demee rejoindre la mouvance présidentielle que da fay nekk su demee ba war a quitter mën na mën na mën na yow quitter mais uh-huh. mais mais mais pour l'intérêt fi mu nekk nii pour l'intérêt supérieur de la nation li ma gis mooy classe politique bi dañoo war waxtaan xool jiital intérêt Sénégal. parce que nag président qu'on le veuille ou non. jusqu'en deux mille vingt quatre. Mm. moo fi nekk. jusqu'à deux mille vingt quatre. Ah le président moo fi nekk. Mm. te bëgg nañ nag si deux mille vingt quatre Sénégal di dox. bëgguñu Sénégal taxaw. pour que bañ Sénégal bañ a taxaw nag il faut que ñu def tout pour que cohabitation du am ñuy bloquer institution yi. dëgg la kon yaakaar naa li ñuy wax ci vie bu cher bi. Mm. mais loolu duñ ko mën a régler parce que kay wax le ñu bloqué leen leen du dox yaakaar naa nag classe bi nga xam ne moom laa gis c'est une classe politique assez avertie pour certains bokk. dëgg la ñoom du ñu dox ci loolu. Mm. la ñuy dox mooy xool ba xam est-ce que am na convergence de point de vue est que war nañoo mën a ànd. est-ce que alliance bi ñu war a def stratégique pour l'intérêt mm. du Sénégal mën nañ koo def je crois que mm. loolu dañ ko def c'est c'est important waaw monsieur le ñu tëj euh, débat bi dernière question bi ma lay laaj rek mooy ngi sorti bi nga xam ne Ousmane Sonko muy leaderu Pastef muy euh, leader aussi tamit opposition bi nga xam ne ñoo battre campagne ci élection législative yi defoon na sorti xamal sénégalais yi que élection yi nga xam ne moom lañ jublu opposition bi ñenn ñi nga xam ne bokk nañ ci ñëpp Macky Sall lañ fi nekkal Macky Sall la ñu liggéeyal lan nga ci sànni ci kàddu yooyu. Ah, waaw li ma ciy sànni jox na raison ñi nga xam ne da leen doon accuser hmm. tey mu ngi leen doon accuser naan leen ñooñu c'est des parties de contribution en quelque sorte loolu lañ doon wax ndax Macky Sall moo leen pare parrainé hmm. tey jii mu ngi dëggal ne ñooñu ci opposition lañ bokk te avant ñuy dem élection mu ngi leen di accuser ne ñoom bokkuñu opposition mais tey gis naa ne ñoom bëgg nañ am majorité mu bëgg a approprier ñooñu nga xam ne tey mu ngi leen doon accuser à tort ne ñoom c'est des partis yoo xam ne le président euh, la mouvance le président Macky Sall moo leen parrainé <laughs> donc euh, voilà mu ngi noonu pour vous dire que parfois aussi euh, les acteurs politiques dañuy agir en fonction des circonstances mais en fonction de leurs intérêts donc euh, loolu ay wax waxi politiciens la woon rek. Hmm. mais tey li ñu gis mooy ñooñu mu doon accuser donc voilà gis nañu wane nañ benn xar kanam. te euh, ñëwuñu rek pour euh, pour pour euh, jébbalu ci président Macky Sall dañuy waxtaan ak moom waxtaan seet fu intérêt Sénégal nekk su fekkee seen intérêt foofu la nekk ak intérêt supérieur de la nation mais je crois que danañ ànd mais en tout cas l'histoire a donné raison que mhm. parti yooyu le président Macky Sall ne les a pas parrainés ah waaw oui bien sûr ok parrainé ne leen ñoom ñoo def avec leur propre moyen am li ñu am. am li ñu am waaw. Mm, c'est important loolu c'est important. monsieur le maire looy tàggatoo. waaw xanaa di tàggatoo rek euh, di leen sant bu baax surtout yéen waa Dakar Live ak sa équipe yëpp. Euh, di sant euh, militant yi responsables yi sympathisants yu nga xam ne yu Touré Mbonde yëpp yi nga xam ne tey ñoo ñu may ndam li mm. te amuñoon occasion pour remercier leen. Euh, c'est le moment véritablement de les remercier et remercier également les tous les responsables yi nga xam ne ñoo contribué ci ndamul Benno Bokk Yaakaar au niveau de Trembone mais au niveau du département mmh. et avec mention particulière à monsieur le ministre Dame Diop bi nga xam ne véritablement il a joué de tout son poids mmh. il a fait preuve de leadership et de management mmh. tey pour que victoire bi ñu mën koo am au niveau de kii di remercier également le président Macky Sall di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla mayal kattan pour que fii mu bëgg a yeggale Sénégal. Mm-hmm. mu mën ko ko yeggale Sénégal pour le bonheur de toute les la population du Sénégal. ah merci beaucoup monsieur le maire mbokk yi ñoo ngi woon ci seen émission enjeu politique dalaloon monsieur le maire sortant euh, de Touré Monde monsieur Modou ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax mbokk yi li lañ leen indiloon ci seen débat enjeu politique di leen jox di daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf. merci beaucoup merci beaucoup.